jaajëfal di amaat mbégte bokk ak yéen plateau bi nga xam ni moo di édition spéciale bi ñuy amal altine bu nekk fii ci Equivox TV ngir mën a waxtaanee tolluwaayu réew mi waaye di ci dalal ay borom xam-xam yoo xam ni saa ne rek seen i kàddu dafay gën di jëriñ askan wi ngir lu leen di gindi lu leen di xamal te itam lu leen di tegtal. ci loolu tey ñu bëgg a waxtaanee li nga xam ni moo di politique ak diine fii ci Sénégal ndax ku ne xam na ni ñaari yëf la yoo xam ne ñu ngi dëkk ensemble fii ci dëkk bi waaye bis bu nekk rek am na lu ñu ci war a mën a xalaat ci lu koy gën a jëmmal ci tamit loo xamante ni dafay euh, dimbali askan wi ba tax na tey ñuy dalal ñaari borom xam-xam ki ci jiitu di euh, professeur Djibi Diakhaté di ab sociologue ak kii dikk tamit di Cheikh Ahmed Tidiane si moom moo nekk président bu cadre unitaire de l'islam bu ko defee kon xam ngeen ni ñaari borom xam la yoo xam ni war nañ mën a àddu ci euh, li ñu bëgg a wax daanee tey professeur Diakhaté ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu mbokku téléspectateurs yu Equivox TV. waaw euh, jërëjëf euh, maa ngi lay nuyu di la ziar sëñ Samb maa ngi nuyu aussi liggéeykatu Equivox TV yëpp di nuyu seen téléspectateurs yi di nuyu waa réew mi yëpp di nuyu àdduna bi tey ñaan yàlla. mu def jàmm ci réew mi mu def ko ci réew Afrique yi def ko ci réewu jullit yi def ko ci àdduna bi yëpp. Mm-hmm. maa ngi nuyu sama sëriñ euh, Cheikh Tidiane sama sëriñ sama xarit di jéggalu nag ci li ma njëkk a wax. Mm-hmm. waaw ndax euh, foofu la ñu toll man ak moom. Mm-hmm. macha allah waaw barkalla yàlla na yàlla def jàmm. am incha allah euh, ñu ngi nuyu tamit Cheikh Ahmed Tidiane si moom mooy président bu cadre unitaire de l'islam sëñ bi si ñu ngi lay bàyyi nga nuyoog mbokku téléspectateurs yi. salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi leen di fay di leen eh, gërëm ci lii nga xamante ni invité nga ko ci seen plateau bi. Mm-hmm. di nuyu sa mbokk téléspectateurs yi. Mm-hmm. ak sa ak internet yi ñuy seetaan. Mm-hmm. di nuyu particulièrement nag sama xarit sama sama lépp ma Djibi Diakhaté yàlla. def mu am xam-xam bu rafet ñu yàgg liggéey ci wàllu symposium yi ñu naan organiser ci wàllu gàmmu def ko ak générosité ñu koy jox wàccuwaay moom tamit di rafetlu aussi invitation bi di ñaan yàlla barkeel jotaay bi amin ñoo si gën a kontaan parce que damay fàttali mbokk téléspectateurs yi ñaan yi ngeen gis dañu am ay yitte bàyyi ko nag ngir Sénégal parce que ku ci nekk rek am nga loo bàyyi ngir mën a jëriñ askan wi moo tax bi ñu leen woowee naam sax amoon nañ yenn contrainte ñoom bàyyi nañ seen yitte yëpp ngir rek luy jëriñ réew mi ñu si ñu koy rafetlu bu baax baax mu nekk benn benn engagement boo xamante ni du ñu jug ci di ko rafetlu bu ko defee ah, Serigne Cheikh li ñu bëgg a tàmbalee waxtaan wi fan yi am na benn xew-xew bu am bu mu xewee kilifa diine yi am si taxawaay bu am solo bu ñu ci doxal ba intervention bi ñu mujjee def moom moo nekk sax li nga xam ne moo di solution bi ndax dañ fa jógee rek gis ni am na benn décrispation politique boo xamante ni am na ci li xewoon euh, la relation entre les politiques et les religieux lan la war a nekk tey. waaw euh, relation entre politique ak religieux moom dafa mës a nekk euh, comme terme dafa xew buroog soow <laughs> noonu lañ ko mën a tuddee ci ci réew mi euh, su ma nee buroog nag mooy ànd la boo xamante ni dafay am ay hauts et des historiquement booy xool politique ak diine mosuñoo tàggoo ci réew Euh, mun naa ci ràññee rek ñaar ba ñetti période euh, bi nga xamante ni mooy euh, période avant colonisation nga xamante ni taxawaayu njàmbaarloo la amoon entre politique ak religion jàmbaarloo boo xamante ni nag mën na nekk ci cadre bu pacifique comme mën na nekk ci cadre bu boo xamante ni dafay dafay dafay jàmbaar ndax am na ay mag ñoo xamante ni dañ doon wuyoo diine ah taal nañ fi jihaad mën nañ ci cité Cheikh Oumar Foutiyou mën nañ ci cité Maba Diakhou ñu mën a wax ni li ñuy tudde état tey ñeneen ñoo ko taxawee woon muy tubaab yi ah, ñoom tamit ñu amoon seen état boo xamante ne état diina boo xamante ni ci diina la sukkandiku mu amoon jàmmarloo diggante ay way politique ak ay ak way ñu yore diine ah, ñaareel état bi nga xamante wala boog ci même ci même période boobu am na beneen taxaw façon taxawaay bu amoon mooy diggante li ñuy wax résistance mhm. euh, pacifique nga xamante ni suñu ay maam yu mel ni Seydi Hadj Malick ku mel ni Cheikh Cheikh Ahmad Bamba am nañu taxawaay bu ñu taxawoon ci wàllu diine daan nag am ay relation ak tubaab bi mën na léeg-léeg mu nekk relation yu ñagas yoo xamante ne donte ngànnaay daanu jóg waaye daan na am ay relation yu ñagas léeg-léeg mu nekk relation yoo xam ne dañuy yëwanalante yëwanalante boo xamante ni ci njëriñu askan wi rek lay doon nag parce que mag ñu baax ñoom lañ daan wut daan ñu ko wutal seen bopp pour seen dañ daan xool intérêt seen communauté ca jamono jooju ñu taxawee ko ñu dem nag ba jamonoy avancé relation bu nekk nag relation léegi Euh, diggante état li ñuy wax état bu bees bi mooy état nga xam ne état après post indépendance. Mhm. ak euh, kilifa diir yi. foofu nag mu nekk benn relation boo xamante ni. Mhm. mën naa ni relation cohabitation la. Mhm. cohabitation boo xamante ni am nañ mën nañ ci cité rek benn. ba période bu xaw a euh, ñagas. boo xamante ni ku mel ni Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum nga xam ne amoon na parti politique. ñëw sàmm ndëndëm. ne dafa bëgg jël réew mi. boobu. am na lu ko suwaa woo ba tey bu ñu liggéey ci waxtaan bi nañ ci gën a xuus mm-hmm. waaye am na beneen relation boo xam moom lañ gën a miin ci taxawaayu kilifa diine yi. mooy relation cohabitation boo xamante ne régulation lay doon. léegi les état bëgg euh, euh, fuus ci dara. kilifa diine bi téye ko. ba nga xamante ni euh, njëriñu population yi toujours mooy nekk en avant. bu ba mën a résumé. ñaari peut ñaari taxawaay laa am. mais aussi mu am beneen taxawaay la boo xamante ni ñu ngi koy commencé seen. boo xam bu bees la ci perspective peut-être mën nañ ci waxtaan. loo xamante ni dañu war a xool naka la ñu mën a xool naka la mën a formaliser peut-être relation entre diine ak ak politique man. ma defee ci introduction rek xam naa ni ñetti façon taxawaayu laa gis ci diggante politique ak di wax ne nag Sénégal heure bu demee ci jamonoy crise jamonoy jafe-jafe toujours dañuy gis kilifa diine dañuy yëkkati seen baat yëkkati seen kàddu ci anam boo xamante ni day euh, euh, nan laa ko mën a tuddee na euh, nekkinu askan bi léeg mu nekk loo xamante ni day neex way politique yi ndax su fekkee ni ay diggante booy xool régulation yi am ci diggante nguur ak syndicat nga xamante ni lu ci ëpp bu amee ay jafe-jafe. day indi euh, kilifa diine mën na cee àddu ngir mën a yéwénal léegi léeg mu nekk loo xamante ne yàq nguur gi. Euh, ci anam yoo xamante ni léeg leen nguur day tooñ euh, gis nañ fii li fi amoon ci taaw ab Wade temps taaw M. M23 m mhm. gis nañ dafa kilifa diine taxaw woon. mu dellu faxe ba nguur gi dellu si delluwaat relation boo xamante ni ñu ko def ci ay ñu doon def typologie relation bi du du lekk loo xamante ni benn fleuve bu bu bu bu stable bu stable la wala fleuve bu mhm. bu bu tranquille léeg-léeg mu am yëngatu mu am bouillonnement mhm. mhm. sociologue yi ñoom xam nañu loolu ci ci diggante société ci biir société yi mu am koo xamante ni day day ñëw pour dalal ko léegi léeg moo xam mu nekk euh, njëwénal boo xamante ni day day rafetal diggante yi te ci loolu moom lu kilifa yi mës a dox ci Sénégal macha allah euh, professeur Diakhaté ni ko Serigne Cheikh waxee euh, cohabitation bi entre politique ak religieux ndax mun na nekk loo xamante ni mënees na ànd bu fekkee ni seetlu nañ comme ni mu ko waxee lu ci bari léeg-léeg dina may xëccante comme si jàmm tamit mun na ci am. waaw euh, ginnaaw bi ma rafetloo xalaat bu rafet bi nga xam ne moom la moom la sëñ bi yëkkati léegi. Euh, ma leen di xamal ni nag euh, moom euh, il est très bien placé pour en parler parce que yàgg na ci ay kuréel di dox ay tànk di wax ay symposium ay xalaat mm-hmm. parce que loolu yëpp boo ko xoolee ci liy defar pénc la parce que mm-hmm. politique nag tamit bu fekkee da nga dellu mm-hmm. ci li muy tekki dëgg-dëgg <laughs> mooy pexe yooyu naal pour defar pénc moo tax wax politique teg ko fee jël religion teg ko fële sax dafay am jafe-jafe parce que religion ci boppam politique daf cee daf cee nekk ci biir bu ñu fàtte ne euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tabax état dafa dafa xeex tabax état doxal état am ay charte ak ay tëralin yi nga xam ne moom la tegoon pour état boobu dox te loolu wéy ci ginnaaw moom ñu ko ne di daxaw di taxawal état di doxal état ci moom ni mu ko xalaatee te diine wàccee ko noonu kon xam nga diine ak politique boo ko waxee dafay mel ni yoo xam ne ñoom ñoo war a ànd te ñu tey jii ni ñuy defee politique ñu war a mën a dellu ci diine jëli fa lu bëri loo xam ni dafay gën a defar suñu toogaay. xam nga buñ ñu nee la la xalif Omar. rabiyallahu taala anhu moom am na émissaire bu ko seet si. ñi ñëw toog di waxtaan ñu taal làmp bi. bi ñu waxtaanee ci biirum diplomatie seen réew yi ba pare loolu nguur gi moo ko waral. ñu war a bi ñu paree loolu ñuy waxtaan seen mbiru bopp mu fay làmp bi. daal di taal bougie. <laughs> daal ni ñun ginnaaw ñi ngi doon wax loo xam ne liggéey la. ci mbirum ngóor yi mën nañu taal làmp nguur gi waaye bi ñu paree bay wax ñu waxi bopp mbirum nguur gi bu mu ci laalati nañ ko fay te taal suñu bougie est-ce que loolu tey nekkul modèle yoo xam ni suñu système politique yëpp war nañ dem mooy ko jëli ko indi ko. ay références la waaw bu ñuy wax tey bon gouvernance bu ñuy wax gestion sobre et vertueuse. ay modèles ñi ngi noonu. te boobu rek exemple laa la jox mën nga jox ay milliers et des milliers d' exemples. boo jëlee l'Almaami Souleymane Baal. dañ koy fàtte yenn saa yi fii ci euh, Fouta. bi ñu defee révolution bi ñoom ak ñoom imam kan yooyu yëpp dañu delluwaat ni nañu tënk nañu dellu ci organisation bi nga xam ni euh, le prophète noonu la organisé woon euh, état bi nga xam ni moom la moom la jiite teg ay principe yoo xam ne boo ko dellu yëpp ci principe yi ci diine lay dellu maanaam lépp li nga xam ni euh, penc mee ko moom nañ ko yaxanal na mu ware ku nekk lañ nga ca war a jot na ko jot na mu ware et cetera xoolal suñu aada ak suñu cosaan buñ daan añ dañ daan añ ci ndab bu buñ daan reer dañu daan taaj ndab dañ doon wax xale yi heure añ ak heure reer bu la fekk ci mbedd mi ndax jinne mën na laa sadd ndax waru ko woon a wuute dañ ndab loolu ñu doon teg moom mooy société bi ñu bokk mooy état bi képp ku toog ci ndab li da nga koy téye ak sa loxo càmmoñ ba ndab li du yëngatu loolu mooy suñu responsabilité par rapport ak pénc bi ku ne am nga responsabilité téye ko ba du yëngatu moo tax ñu koy teeg suñu loxo càmmoñ suñu loxo ndeyjoor rek ngay lekke te sa loxo ndeyjoor boobu sa kanam dong nga war a yem wala laal li ci kanamu jàmbur xoolal ni ñu lay tuye le respect de l'autre ndawal nga ci diggu ndab la gone yi amuñu droit laal ko mag ñi dong ñoo am droit laal nga ci ndawal nga ci diggu ndab mag ñi ñoom ñooy dirigeant yi. ku ci nekk li nga waaye ku ci ne ndawal jooju comme ñoom ñoo am droit laal ko duñ ko jël teg ko ci seen kanam mm. waaye dañuy jël. ku ci nekk ñu dagg la nga warlu woo war nga ko soxla nga ñu tegal la ko ci sa kanam. lu partage xoolal xoolal xaw ma ba xam ñi ngi jàng bu baax. ni ñu doon organiser société bi noonu ci ndab. lépp maanaam yow booy lekk sax amoo droit jël ñam bi tuur ko ci suuf. parce que yow yàlla baaxee na la nga jot ci ñam jooju. da ngaa war a xalaat ki nga xam ne jotul ñam gi. ba nga wormaal ñam gi nga xam ne xoolal xoolal yërmande gi ak formation boobu nga xam ne moom moo amoon ci euh, suñu tradition ni doon Euh, bien avant islam ak christianisme di dugg si fii dañu amoon ay gëm-gëm te gëm-gëm yooyu dafa bokkoon ci ni ñu doon doxalee suñu pénc moo tax loolu dafa mës a am ñun ci ñun ñun nit ñu ñuul ñi en tout cas dafa mës a am ci suñu gis-gis ni ñu di gisee àdduna euh, boo ko dee xool dañu doon bu ñu boo pénc moo gis rek day am maam moom moo ko sañc moo tax ña nekk ca pénc ma yëpp ay mbokk la ñu nekk loolu moom mooy indi ay kër diw kër njaayloo mooy njaayloo ci boppam moo ko sanc kër masaar masaar moo ko sanc kër et cetera boo demee ci halpulaar euh, yi ñuy wax euh, saare wala ñu ni wuro boo demee ñeneen ñu ni kunda siise kunda ture kunda tamba kunda ña sant tamba ñoo fa dëkk bu ko defee bu pénc yooyu ki nga xam ni moo ci gën a féete mag dañuy jàpp ni moom moo gën a jege ñi nga xam ni jóge nañ fi léegi dañ jàpp ni doomu aadama yi bis bu ne li ñuy jëf ak li ñuy wax dafa war a ànd ak cosaan yi nga xam ni mooy lu li li réew mi bëgg bëgg charte yi nga xam ni moom la bu ñu ko deful rek ay jafe-jafe day am ci seen dund moo tax bu a am ay ay ay nawet bu tawul ba tooy wala bu mosaan a am ay daay wala bu mësa am ay li ñuy dund nii mbas dañ naan ah ñun kat euh, am na boo moytuwul tooñ nañu bu ko defee kooku mooy xool naka la ñu mën a def ba jàmm dellu siwaat moo xam dañuy dañuy saraxe dama lay wax ci balaa yi mhm. ñuy ki dañuy rey euh, ay ay ginaar rey dara. Mhm. Euh, def ay sarax. Mhm. tuur soow wala yu demee noonu ba jàmm daanu dellu siwaat ci pénc mi kon loolu dafa mës bokk ci suñu pénc mi. encore une fois bu fekkee ne politique jaarale nañ ko nañ ko war a jaarale. dafay xeex ak xeex. xeex xeex maanaam. day tax ba tax ba xeex du am. parce que bu ko jaarale ni ko war a jaarale. mooy xeex bi day féetewu ci ay tëralin ci ay. ci ay idéologie ci ay doctrine yow da nga ni man nii laa gisee buñ ma joxoon nii laa koy doxale lii moom moo gën nii lañ ko war a defee kenn ni man nii laa ko gisee nële laa ko bu ko defee xeex bi foofu lay nekk dafay nekk ci diw de li mu yaakaar defe naa ni moo gën ci kii kenn nañu essayé la nañu kii et cetera loolu moo tax ñu indi ku ci nekk am sa formation ñuy taxaw di xeex mais ci kaw xeex boobu nag diine daf ci nekk loo xam ni daf ñuy fàttali ne euh, parce que gis nga doomu aadama lu mu def intérêt daf ci man bu may defari loi yenn saay yi ma ma ma ma tànn ci li nga xam ne moom mooy sama intérêt jéem koo doxalee noonu bu ñu delluwul ci diine rek. boobu li ñuy lijjanti day yem ci suñu ay intérêt boobu foofu la ñuy di. di gindee. du delloo ci nag ñun ña ay yaamu yàlla lañu. ñu tolloo foofu nag. bu ko defee bu boobaa intérêt bi dootul nekk ni ndax dinaa ci am kër wala dinaa ci am oto waaye ndax sama bàmmeel waajal naa ko waaj boo xam ne bu ma fa demee la ma jëf fii dinaa ko fa fekk mu génnee ma ci compte bancaire ak compte bàmmeel mhm. diine ci loolu la ñuy dellu moo tax am réew Mar euh, Marlo waxoon na ko nee na le vingt et unième siècle sera religieux ou ne sera maanaam bu ñu delluwul ci diine rek mhm. musiba la ñuy nekk parce que dañuy toll foo xam ni dootuñu amati benn référence dootuñu amati benn repère mhm. ci ay jafe-jafe la nekk parce doomu aadama ak xelem boppam kese comme ni ma ko waxee léegi mhm. ay intérêt lay gën a lijjanti que intérêt collectif d'accord euh, junj na ko léegi euh, Serigne Cheikh yaa ngi koy wax sànq sax si taxawaayu ku ci mel ni Cheikh Ahmed Tidiane Sy ci wàllu politique bi mu ci amoon ak yeneen ci ay kilifa yu fa nekk ci réew mi ci wàllu politique ba fi mu toll sax daanaka boo xoolee gis nañ ci famille religieuse yi fi gën a mag njaboot yi yëngatu ci wàllu politique ndax tey mënees naa am euh, maanaam Sénégal politique boo xamante ni li koy tënk c'est les principe de base de l'islam comme ni ko professeur euh, waxee léegi. ah kooku nag question bu xaw a euh, jafe la ndax da may da nga may xuusloo ci <laughs> contradiction yi am ci diggante mhm. religieux yi. ci mhm. diggante ñi nga xam ñoo ngànk politique. ñi nga ngànk mhm. diine yi. ci seen taxawaay ak politique. man damay joxe avis personnel ci ci wàllu boobu. d'abord. ci diine. Mhm. diine dàqul. politique bu dee diine islam bokk. Mhm. dàqul ngay def politique. Mhm. Euh, yonent bi wax na ko léegi sallallahu alayhi wa sallam euh, dafa njëkk a euh, dafa dafa créer état. mais aussi di doxal diine. booy xool saxaaba yi topp ci gannaaw yëpp dañ ko doxal. empire islamique gis nañ ni mu taxawee ci àdduna bi ba nekk empire ottoman ba boo demee yenn dëkk yi tey yu mel ni Maroc yenn dëkk yi. diine moo ŋànk état bi kon ça veut dire que. du ñaari euh, principe yoo xam ne dafa antinomique léegi nag euh, suñu réew dafa am lu ñu fi taxawee muy laïcité moo xam moom la ñu wax ni que moom mooy suñu ñu ne ñu est-ce que suñu laïcité dafa nekk laïcité boo xamante ni dafay nekk laïcité à la française nga xamante ni day dafay day négation sax diina lay nag maanaam day day day woroo day day dañuy dañuy taqale totalement diine mhm. ak ak politique ak mhm. politique. wala laïcité peut-être à l'américaine entre guillemets bi nga xamante ni nit ki day nekk la mu nekkoo pare mais acte bu mu posé ci àdduna bi da ngay gis tuuti benn relent religieux. Euh, ñu ne ñun mani man euh, ci sama bopp nga dellu ci alxuraan. Mhm. daf lay wan ni diine soriwul ak. politique ak politique bu su ñoo waroo. ndax euh, yonent bi mu ne xubbul watan min al mhm. boo fekk bëgg sa réew ci. ci ci ci ci imaan la bokk ci ngëm la bokk. ba pare yàlla wax ci alxuraan atiyu llaaha wa atiyu rasul wa ulil amri minkum maanaam yow mi nga xam ne nga nekk eh, jullit da nga war a topp yàlla topp yonent bi mais aussi da ngay topp ci gannaaw ñi nga xam ñoo ñoom la jox responsabilité kon saa veut dire yàlla ci boppam moo ñu ne dañoo war a am vie de citoyen vie de citoyen di respecter ay règles di respecter politique di respecter donc ci diine dafa war a ànd diina ak ji ak ak politique moom ak nekkin citoyen dafa war a nekk loo xam ne toujours dañuy ànd euh, mais suñu réew ni mu tëggeewu euh, dina jafe lool bu fekkee ne rôle bi nga xam lañu bëgg religieux euh, di ko continuer di jafe lool religieux yi di samp seen dund di mën a woote woote jiite réew mm-hmm. mais ci ak seen mbubu religieux. dafa mel ni askan wi nangooguñ leen posture boobu nangooguñu posture boobu mm-hmm. ndax dafa am lu tax. xam nga ji wax na ko sànq. Mm-hmm. société ku nekk da nga ci am da nga ci am responsabilité. Mm-hmm. boolu ceeb bi mu wax sànq. am na koo xam ne dañ ko wane ko. sàmbi jaxatee la sant <laughs> jaxatee sant c'est normal. <laughs> société ku nekk da nga am responsabilité ku nekk da nga am am am bu amee amalgame ci rôle yi rek léegi les société bu day day dénaturé wu na changer taxawaay ba pareetul fa mu jëm. day jël benn trajectoire boo xam ne mën na am dootuñu ko mën a gérer. Euh, ma ngi dégg sama waajur wax ni moom bi muy dugg ci politique dugg woon ngir mën a jiite réew. am na sax mu reetaan lu mu ci wax mu ne. kon suñu suñu ñi nga xam ne mënuñu sax gérer daayira. <laughs> mënuñoo yore réew ñu jox réew fu ñu fu ñu jëm. c'était juste une manière de de parler. Mm-hmm. ndax mm-hmm. xam-xam lépp may na ko vraiment. mu egg mu mm-hmm. egg yenn niveau yi mais. dafa bëggoon wax rek ni. ba muy samp. pour jël euh, pour pour am taxawaay jiite réew. Mhm. dafa ko woon pour jiite mais dafa bëggoon wane ni que. Mhm. diine dafa war a compter ci li nga xamante ne mooy ni ñuy réew. Mhm. te boobu te te réussir na ko. ndax ba mu sampee ndëndam euh, yenn yenn kilifa yi daw ci yeneen kilifa diine. pour daf ko def pour joxaat légitimité. religieux yi. ñu contre ko wala nga ànd ak moom nag. mais mu am légitimité religieuse. ci géopolitique bi. Euh, tey ji bu xoolee nii. adduna bi di avancé suñu dëkk suñu réew mi ni mu avancé li fi am bëkki dem bu fekkee ne woon ay way way ñu nekk ci diine ñuy ñuy ñu waroo régulation du am du am koo xamante ne mooy taxaw ci diggante bi wax ak ñii wax ak ñii ne leen ñu d'accord ci dal ndax position yi si amee ndax position moo tax du tax nag du tere nag tey boo nee man damaa nekk nitu diine parce que fii Sénégal déjà tur nitu diine boobu sax dañ koy dañ ko dañ il faut ñu ñu ñu ko ñu xoolaat ko ndax est-ce que imam bi mooy nitu diine bi mhm. est-ce que euh, kii nga xam dafa sant si wala dafa sant Mbàkke mooy nitu diine bi mhm. que ki nga xam dafa jàngi ulama bi mooy nitu diine bi mhm. est-ce que dafa bari ay ay ay ay euh, yoo xamante ni kenn leeralul ko ci nitu diine man damay sant rek euh, dëkk Tivaouane ñu askanale ko askan <laughs> nitu diine ñu ne bu fekkee ni kooku la ñuy wax nitu diine parce que jox naa plusieurs joxe naa ay ay ay taxawaay yu bari yoo xam mën nañ ko wax nitu diine tey imam mën na taxaw ne man damaa bëgg nekk nekk nekk président ci ci lan la koy teg dootu ko teg ci wàllu diine da koy teg ni man damaa bëgg nekk président gis nañ fii imaam bu ko bëggoon nekk imaam Mbaye Niang bëggoon a nekk nitu diine te pourtant kenn kenn gis kenn ñaawlu ko ci wàllu woowu euh, boo jëlee tey ñi nga xamante ni ay ku mel ni Sëriñ El euh, si Jamil euh, tey positionné wu na en tant que en tout cas ku war a jóg ku mën a nekk jiitu réew ndax présenter na fi ay élection kon tamit mais su fekkee da koy jóg pour présenté wu da ngay obligé période bi ngay présenté wu. peut-être mbubb mu naqaree simila. Mhm. mbubb bu diir mu diir moom seen naqaree simila waaye nga jël mbubb moo xamante ne dina ko nëbb ba kenn gis. nga mhm. ca biir. Mhm. pour mën a taxaw ne man damaa bëgg a sàmm sama nënd. te loolu bu boobaa nag. dootoo mën a nekk nag rôle ba nga xamante moom la ñu jox rôle. Euh, nitu diine nitu diine waxuma ci wàllu xam-xam. si si bee doon waxuma mm-hmm. côté boobu. kooku mm-hmm. dafa nekk loo xamante ni day naturel la ci yow. Mm-hmm. mais rôle régulateur bi nga xam moom la société bi jox. ci jeu politique bi. nga xamante ni bu jafe-jafe amee ñu xalaat ni kat kër kilifa diine war nañoo wax yow kenn doot kenn doot la ci xalaat. ndax dañ naan kat yow da ngaa far. Mhm. neutralité bi day poser problème neutralité non neutralité sax musul am. neutralité moom euh, li sëñ Richard di wax naan. Euh, mhm. euh, tu es neutre contre boo nekkee nitu diine di nga am fu sa xol di dem. Mhm. mais nga fësal ko ba ni man damay taxaw di di di di di jàmmaarloo nekk ci jeu politique xam nga nekk jeu politique mën nga ci bokk en tant que belligérant c'est-à-dire que nekk ci koo xamante ni day samp ndëndam mais mën nga ci nekk aussi en tant que régulateur ne dugguma ci biir. c'est vrai sama biir xol am na ku ma àndal mais bu coow amee war nañ maa mën a wookat ma ñëw àtte loolu moom la ñuy xaar peut-être ci en tout cas entendement bi Sénégal am ci ci nitu diine ci taxawaayam ci politique foofu la nekk mooy ni nitu diine bi war na mën a dugg ci politique ngir àtte war na mën a bu politique amee mu jël carton dem voté waaye warul mën a euh, taxaw en tant que nitu diine laa wax de ne man damay laaj. laaj laaj nguur gi bu boobaa day génn ci rôle régulateur nekk nag léegi euh, en tant que acteur politique euh, ci wàllu ko nekk vraiment en tant que belligérant euh, te loolu je pense que dafa nekk loo dañ ko war a dañ ko war a dañ ko war a maintenir maanaam mhm. situation la boo xamante ni bu wala statut boo xamante nit dina ko am na ko réew mi daf ko soxla il faut mu am ñoo xamante ni ci réew mi kat dañ leen di joxe mandarga <laughs> ay régulateurs ñun suñu société Euh, professeur wax na ko sax daf ci am ñu ay ay ay façon yoo xamante ne mu nekk ci wàllu aada wala mu nekk ci wàllu diine wala mu nekk ci loo xamante ne tout cas du dañ koo taxawal daf ci am ñoo xamante ni yàlla moo leen ko moo leen ko jagleel société bi nangu ko ci ñoom ñooñu suñu leen suñu leen nasaxalee parce que dañu leen a sax dëgëral à la limite bu ñu leen nasaxalee société bi dootul am ay ressort yoo xamante ni mën na ciy sukkandiku ba lii nga xam ne moom la ñuy ñeewee ci àdduna bi muy le vivre ensemble boobu ñuy wax expression sénégalaise mm-hmm. ku mel ni Senghor nekk fi catholique pan mën a jiite réew mi pendant mm-hmm. vingt ans mm-hmm. euh, ñu nekk ci réew moo xamante ni euh, daara daf ci am lu mu fi représenté nekk fi nekk réew moo xamante ni euh, tout ce qui en tout cas religieux am na fi taxawaay te du yàq dara suñu nekkin du yàq dara ci suñu jëflante loolu dafa nekk loo dañ ko war a conserver mhm. te tant que ressort yooyu ñu ngi koy conserver ci loolu mhm. yaakaar man am naa yaakaar ci Sénégal am naa mhm. yaakaar ni duñu mës a dina naan dina dina mën na plié wu waaye du mës a du mës dom donc suñu société daf ko soxla te ma loolu laa xalaat ni war nañ ko mën a euh, euh, maintenir ba réew mi euh, du mës a àgg ci en tout cas niveau boo xam xamante niveau de basculement boo xamante ne dina dootul dootul neex a dom macha allah alors professeur ko ni ko kilifa gi waxee ndax tey kon lan lañ war a mun a def pour briser sa tabou bi nga xamante ni jàpp nañ ni ku ñuy askanele ni nitu diine nga rek amuloo wàll ci wàllu politique naka lañ ko mën a dindee défi boobu tey. bon ni ñu ko mën a dindee. Euh, mooy ñu defar politique bi ba mu sell. xam nga boo gisee ñu naan politique diw waru cee laale. c'est parce que dañu jàpp ni sellul. te te politique dafa war a sell. dafa war bu sellee jekk ku takk doo ci mën a dugg. ñu ñu sell rek ñoo ci mën a dugg. xam nga yàgg nañu wax fi naan moralisation de la vie politique. ñu defaraat ba nit ñi delluwaat ci ay valeur gis nga bu njëkk. boo nee par exemple ci euh, parti communiste laa bokk wala parti socialiste. rek dañuy jàpp ne yow defal nañ la formation. ba nga xam ni booy wax ay idée dañuy xam ni kii. vraiment formé nañ ko ci socialisme. Hmm. dafa amoon ay écoles yu doon fonctionner militant yi nga xam dañu former seen militant militantisme dem sax idéologie. non idéologie dañ lay hmm. défendre ni la. réew mi nii lañ ko léegi moom dafa bari trop sax te vraiment li fa war a nekk essence bi nekk fa. voilà ñoo xam ne dañ koo gëmoon sa à dire que dañ koo di ba. Hmm. am na ci ñoo xam sax seen i njaboot dañ leen doon nàmpal ci ci idéologie parti bi moo doon tax. ngay gis benn njaboot boo xam ne. Mhm. ñëpp dañ naan la seen maam fii la nekkoon seen baay topp ci seen et ci loolu la ñuy tënku. Mhm. parce que ay valeur la yoo xam ne dañ koo partagé gëm ko. yow nga far feneen am valeur yooyu partagé kook ñooñu moom laa la doon wax léegi loolu bu boobaa dafay sell. te bu boobaa euh, képp ku kuy yëngatu ci lu sell rek dañ ciy gis sa bopp. Mhm. léegi pëcc xaw bi dafa waaw mais léegi dafa boo xam boo xoolee politique ni ñu koy defee. Euh, am na ñoo xam ni seen li ñuy sol dafa weex trop. buñ ci duggee dafay gaaw a taq. xam nga li ma la wax. waaw parce que foo xam ni saaga lañ fay def. Mhm. waxante yu ñaaw lañ fay def. Mhm. ay ay ay mhm. ay jëf yu ñaaw lañ fay def. ay ay yooyu am na ñi nga xam ni du seen cër. waaw bu ko defee kon euh, dafay indiwaat encore importance su diine en en amont waxuma ba problème am sax <laughs> mais balaay problème di am ñu war faa mën a puiser ay valeurs yoo xam ni moom moo ñuy moom la ñuy utiliser pour tënk ñun suñu idéologie. nampal ci suñuy ñoñ. loolu diine dafa war a nekk benn réservoir mhm. boo xam ne dañ nga ciy war a dem nàmpatalu ci bu baax a baax a baax mhm. pour ñëw euh, defar ni man nii laay doxalee mhm. pourtant ñu njëkk ñi daan nañ def lu mel noonu dañ daan jege lool mag ñi ñi doon nekk ci politique dañ daan jege lool mag ñi di leen déglu te loolu ñu leen doon déglu dafay am lu ñu jël boo ko dee xool ci seen doxalin dañ ci daan tenir compte gis nañ ko si Senghor ak Serigne Fallou mais dañ ci daan tenir compte Abdou Diouf ak euh, Abdoul Aziz Dabakh dañ ci daan tenir compte bu baax a baax a baax a baax a baax Euh, sëñ bi dafa wax loo xam ne man maa ko waroon wax euh, dafa wax ne dafa am lu ñu gëm ci pénc bi mu nekk ci pénc bi loo xam ne dañ koo war a dëgëral loolu moom ko wax man maa ko <laughs> parce que position may ko <laughs> tamit problème la parce que ni nga ko fësalee nii noonu la am ko jàppee que ni loolu warul nekk taxawaay waaw loolu loolu day mel ni day ràcc jëmale waaw loolu loolu nag mooy seen cër loolu mooy cër bi nga xam ne mm-hmm. euh, société bi moom moom moo ko jox Mmh. ñooña te mu nekk cër bu am solo parce que cër bi dafa nekk ci mmh. équilibré mmh. dafa nekk ci jàmm am ci réew mi te loolu xam nga bu fekkee man sa waxuma ko loolu tubaab bi ci seen bopp ñoom ñoo ko bind boo demee ci Paul Marty euh, dafay bind lu mel noonu ni stabilité Sénégal boo ko dee xool boo demee ci keppaaru confrérie bu mu mënti doon da nga fa fekk ñu jóge ci waaso yu bari ñëw dajaloo fa mais loolu dafa am solo da ngay ñëw boo ñëwee ci keppaaru sëñ bi fekk fa joolaa fekk fa séeréer fekk fa wolof fekk fa jaaxanke fekk fa jawaandoo fekk fa bidik fekk fa basari fekk fa alpulaar ñoom ñëpp toog bokk benn pas-pas loolu dafa am solo mhm. ci stabilité ci luy dajale am réew feneen boo fa demee da ngay fekk ñi waaso bi am seen i gëm-gëm ànd ak ki mooy indi yenn saay ay jafeñ-jafe ay conflit mhm. interethnique mhm. fii doo fi fekk lu mel noonu Euh, mu am ñoo xam ne bu ñu jógee taxaw wax rek da ngay gis ñu bokk ci waaso yu bëri ñu bokk ci catégorie socio-économique yu bëri ñoom ñëpp gis seen bopp ci la muy wax bu ko defee loolu dafay nekk mu bëgg ko mu bañ ko mu incarné ko mu bañ koo incarné loolu mooy li nekk def fait moom mooy li nga xam ne moom moo am maanaam loo xam ne moom mooy euh, laytaayal ab pénc ba mu nekk pénc moo xam ne dafay neex a yanu laytaayal ba nga xam ne ki koy yanu am na laytaay bu nekk fii mooy tax li muy yanu diisaay ba mu waroon diis dina xaw a wàññeeku bu ci dañee rek li ngay yenu day ñëw directement ci sa bopp te loolu dafay xaw a jafe il faut mu am laytaay boobu laytaay boobu moom la yàlla def ñu euh, il faut ñu xam ne réew mu mel ni Belgique yenn saa yi ñu toog lu mat at ak lu ko réew ëpp wala lu ko ëpp doo am gouvernement te réew ma day dox ñoom sax boo leen waxee dañ naan ñun bañ am gouvernement moo ñu gënal nga foog ni réew mu amul gouvernement di dox amul leneen lu fa nekk loo xam ni moom mooy mooy ressort bi sëñ bi doon wax mooy ressort boobu sookul boobu di téye kii bi ba nga xam ni tension yi du jóg mhm. mais parce que dafa am royauté ñu jox ko cër boobu mu nekk seen aada ak seen cosaan ñoom loolu la ñu gëm boo demee tey jii fu mel ni Royaume-Uni mhm. nga fekk fa ñu am buur bu jigéen laa reine mhm. Euh, buur bu jigéen boobu bu ñu demee ba yenn jafe-jafe yi am ci diggante sax yenn dëkk yi ay entre Irlande yi Écosse Pays de Galles et bu waxee ñëpp tënku ci la mu waxu ba pare nag penc mi yëpp reconnaître ko loolu moom sax dañu dem nag ba jox ko statut spécial mu am ñu muy ñu ñu nga xam ni ñoom lay àndal ci liggéey bi ñu koy xelal ak ay affaire deme noonu alors léegi loolu am foofu ñun ñu am loo xam ne euh, Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum yàlla yàlla lokk leeram yóbbu ko àjjana nee na ba ngay tàmbalee ba nga xeebee sa bopp nee na foofu la tumranke tàmbalee mooy ba nga xeebee sa bopp maanaam nga am lenn ba pare xeeb ko dem di yootu li keneen am te li keneen am yow gënu la gënu la baax li nga yor Joseph Kizerbo moom la tuddee la naat des autres mm-hmm. neen na bis boo bàyyee sa basang dem di wutali basangu jàmbur xëy na di nga toog mais doo toog place ba gën bu ko defee nga gedd daw di wutali sa basang fekk ne ku la gën a sa gën a xam sa valeur u jël na ko dem ak moom xam nga lan moo tax may wax ku la gën a xam sa valeur u jëlal la parenté à plaisanterie fii ci réew mi wala ci réew yi nga xam ne ñu ngi Afrique de l'Ouest mooy li ñuy tuddee ci wolof kal wala gàmmu kal walla gàmmu alors xoolal loolu njariñ ji mu am ci euh, éviter les conflits les tensions man jóge naa fii jël sama oto di dem Mali may dawal sama oto ba frontière bi frontière kaay frontière boo génnee Kidira di dugg kaay douanier arrêté ma ni ma da ngay fay passe avant benn douanier mu ne ma euh, passe avant bi mille francs la mais comme week-end la 15000 ngay fay ma ne quoi ah, mais man comprendre ma mu ne ma waaw noonu la de ma jox ko sama carte grise mu xool ni ma ah yow jaxate nga sant demal parce que moom jàlloo la sant mu ma demal gis nga loolu dafa am solo euh, man encadré naa ay étudiants américains yu jógee États-Unis ñëw fii di gëstu plaisan euh, parenté à plaisanterie naka la demee xam nga ñoom ñi ngi xool naka la ñu mën a utiliser loolu ba doxal ko ci seeni réew yooyu nga xam ne yenn saa yi dafay bëri ay tension trop mm-hmm. parenté à plaisanterie nga xool par exemple problème mu Casamance ba muy jafe lool lool lool lool lu ñu mer mer mer bu ñu gisee séeréer duñ ko laal mm-hmm. ba ba léegi sax tey <laughs> boo xoolee ah, ah. administration territoriale bi ay séeréer la ñuy jël di ko fa teg mm-hmm. donc loolu dafa am solo muy loo xam ne mag ñi sell yii tamit nag nga xam ni du tey joué nañ fi role yu bëri boo nee sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh kenn du laam-laamee ñu ne voilà un exemple euh, entre autres de médiateur mm-hmm. boo nee monseigneur Hyacinthe Thiandoum mm-hmm. kenn du laam-laamee ñu ne un exemple de de de régulateur mais mu bëri ci ñoo xam ni bu ñu bu ñu fi nekkul woon Euh, pour que ñu am stabilité boobu pour que ñu am équilibre boobu. Mhm. dafay xaw a jafe trop. mais encore une fois ñu xam ni politique dafa nekk lu sell mais Sénégal am na liggéey bu ñu war a def. Mhm. pour euh, li nga xam ni dafa nekk tâche ci politique ñu dindi ko. parce que nag bu fekkee dañuy waxante dëgg am na ay tâches. Mhm. mais tâches yi nga xam ne mu ngi nekk ci politique bi nañ ko dindi man damay wax ni suñu parti politique yëpp boo ko dee xool am nañu instance des sage am na am na comité des sages parti politique yëpp boo fa demee am na comité des des cadres parti politique yëpp am na école du parti pour man am nañu instance yoo nga xam ni bu fekkee ni liggéey nañu liggéey ba ñu war a liggéey jege mag ñi nag ñu am lu ñu leen yokkal ci loola loolu dafay nekk ci prévention ñu waajal ba nga xam ni du ñu yegg ci conflit conflit nag yenn saa yi du ñàkk ci ay société mais lii différence société yi mooy dafa am société yoo xam ne bu fa conflit dafay dafay metti parce que da am foo xam ni loo xam ni moom mooy kenn gi tax ba conflit comme li ko sëñ bi waxee léegi mhm. dina jeng rek waaye du du dem ba damm mhm. parce que dafa am lu nga xam ni laytaay boobu ma doon war sànq mhm. moom moo fay nekk di fa téye ñooñu nag dañ leen wax di jox cër dañ leen a war a jox wàll mu nekk wàll boo xam ni dafa am solo Sénégal ak lépp lu ñu mënti wax dëkk yi ñu wër yëpp ay dëkku jafe-jafe la ci mbirum conflit social dëkk yi ñu wër yëpp ñi am nañu coup d'état ñi ay rayante yu dul jeex yàlla musal ñu ci loolu mais exception sénégalaise boobu. boo ko seet loo xam ne mag ñi nag wax dëgg yàlla ak quoi qu'on puisse dire mais <laughs> dëgg yàlla liggéey nañ ci liggéey bu am solo léegi nag ñun suñu responsabilité. mooy héritage boobu ñu ñu bàyyil. mais naka lañ koy gérer tey ji am na solo loolu moom mooy suñu responsabilité. am na solo euh, Serigne Cheikh xam naa ni comme ni mu ko waxee day nekk défi boo xamante ne pour relever que du yomb ndax boo xoolee wax na si wàllu seen taxawaay. souvent askan bi dañuy xoolee ni diw surtout diw la famille famille nangam la bokk warul bokk ci loo xamante ni sellul et tout ça kon xëy na défi boobu lu jafe lay nekk mais sànq danga am loo junj ci sa biir waxtaan moo di bu ñu demee bay wax wàllum laïcité à l'américaine parce que yaa ngi junj si wàll woowu ndax ñoom gis nañ bu ñu taxawal sax seen njiitum réew day taxaw ci bible daal di yëkkati loxoom waat et tout ça kon tey Sénégal lan moo war a mën a nekk atome ci vraiment atome yi mu war a am ci laïcité bi nga xamante ni mënees na fi am ndax mën nañoo wax la laïcité à la sénégalise waaw <clears throat> dañu war a bàyyi li ma sama benn xarit Bakary Samb di wax. Mhm. ne di état li muy con diine toujours. Mhm. dañ leen dugal ci benn menu. ci seen bu ñuy añ euh, bu ñu xam nga añ loo soxla rek <laughs> daal di ciy jël daal di lekk daal di tegaat boo paree tagaat ko euh, loolu war nañ ko xoolaat euh, muy relation bi nga wax léegi entre diine ak mhm. état waxatuma sax politique mais mhm. entre relation ak nit diine ak état parce que wax naa sànq mhm. ci sama wax ne ba léegi définir guñu statut ki nga xam mooy nitu diine ki tey maa euh, kar maa ngi wax ne ma ne xoolal même lu jëm ci wàllu weer sax mhm. weer mhm. c'est société privée moo koy gérer parce que bu ñu ne bu ñu ne euh, association c'est c'est du privé mhm. euh, li ñu woowee Konacop tey gis nga jafe-jafe yi ñu am fan yii privé moo koy gérer boo gisee tey bu ñuy bu ñu nee laïcité. ba pare bu gàmmu jotee. Mm-hmm. état bi yónni délégation effectivement ñu ñëw jël ay moyens état. Mm-hmm. dugal ci biir gàmmu gi. Mm-hmm. Euh, ministre bi ñëw jox kàddu président la ñu ne ci laïcité lañ nekk. laïcité bu xaw a. effectivement bu xaw a bu ñu war a redéfinir surtout. voilà donc il faut que ñu ñu ñu ñu ñu tëggaat relation diggante nitu diine bi. ak état. am na loo xamante ni ay relation mais wooy relation diplomatique lay doon entre ñi nga xam ne ñoo tarixa yi ak état kooku relation rafetal la te teraanga jëf jëflante ak ay conseil mais dafa am taxawaay boo xamante ni dafa am ci réew mi ci wàllu diine boo il faut que ñu formaliser boo jël mel ni enseignement religieux muy daara daara tey amul lu ko définir ci réew mi essayé nañu rek def benn programme de modernisation des daara mais tey amul dara loo xamante ni moom mooy cëslaayu euh, enseignement religieux ci réew mi mhm. wax naa ko léegi mbirum mbirum weer wi mhm. mbirum bi nga xamante ne day impacté ci calendrier wu musulman calendrier wu jullit bi mhm. ñu ci def ñu def jour férié chômé et amul dara lu ko lu ko lu ko lay taay cest day dañuy xaar benn association bu privé mooy ni état bi tey lañu war a woor wala suba lañu war a woor yi xam nga loolu problème femme bi nekk ci suuf yoo xamante ni il faut que ñu xool ndax dañoo bëgg rek continuer ci benn relation bu informelle diggante état ak nit ak diine yi wala est-ce que tey laajul ñu taxawaat ah, ndax jamono laaj ndax jamono moo ko laaj naka la ñuy mën a tëggaate diggante état ak ak ak nitu diine bi mhm. man kooku c'est porondal la bu ubbi ci reflexion yi euh, dafa am benn suma benn way jur bu ma nettali benn waxtaan bu amoon diggante Serigne Euh, Abdoul Ahad Mbacké <laughs> euh, maam Abdou Aziz Dabakh ak euh, su ma juumul xalifa Ndiassane si Lamine Kounta foog naa moo fa nekkoon jamono jooju ñu tëju ci benn néeg di waxtaane réew mi pendant ñaari waxtu <laughs> sama way juru daan ne ay lii de su yoon ñu ko mën di am bés bu ne <laughs> réew mi dina gën a jag ma xalaat ne conseil islamique boobu mag ñi xalaatoon bug naa ni suñu bàyyi Ibrahima Niass gis ko xalaat moom ak Euh, Cheikhul Islam moom ak euh, euh, suma ma juumul sëñ Cheikh ak Gaynde Fatma ak ay seen i naataangoo ci jamono xalaatoon nañu mettre en place un conseil islamique ngir lan ngir mën a préoccupation yi nga xam ne diine am na ko parce que Sénégal damay wax tuuti ne diine demande sociale la maanaam nit ñoo soxla tey man maa nit ki dafay soxla doomam jàng alxuraan loolu buñ la ko école bi mayul sax yaay wut sa professeur ci kër gi mhm, mu koy jàngal mu lay jàngal kon ça veut mhm. dire am demande sociale boo xamante ne mi ngi ba si sax réew mi bu yëngoo ñoom ñooy a taxaw laaj kilifa diine yi nañu nañu àddu donc tey diine dafa am taxawaay ba pare mhm. est-ce que taxawaay boobu loolu nag sociologue yi ñoo ci mën a gindi est-ce que dafa war a nekk taxawaay boo xam dañ koy bàyyi rek mu nekk ci structure bu informel ah ñu ñu koy ñu koy parce que loolu aussi mhm. dafay baax ci société léegi léegi am na ay yoo xamante ni boo mën mën na sax boo ko boo ko dugg wutalee boo ko wutalee euh, nu koy wax ay karka boo ko wutalee ay ay ay ay ay wurwaay mhm. mooy tax mu mu ligi ba mu waroon joué dootu ko mën a joué mhm. <coughs> wala est-ce que dañu war a xool ne lii kat war nañ ko mën a formaliser ci diine yi mais lii nañ ko bàyyee ciru mag ñi la nañ leen bàyyi ñu doxale ko yooyu je que état tey ak ak relation ak nitu diine war nañ commencé di ci xalaat ban relation la état war a mën a am ak ak ak kilifa diine yi mhm. te nag day am ay jafe-jafe yu bari mhm. euh, damay jël rek xool bi mbas mi amee mhm. bi mbas mi euh, kilifa nitu diine yi tëj jàkk yi waaw ñu dem ba ci biir mu am ñu ne dañuy tijji ñu dañuy tijji état boobu am na jaaxle te xamul kan lay waxal booba bu amoon conseil bu mel ni conseil islamique mën na am lu muy mujj rek dem ci kilifa diine bu dee laaj ko ah yow loo ci xalaat mu ne ko nangam yow loo ci xalaat bu fekkee ni taxawaay dafa waroon mm-hmm. day am problème ci. Mm-hmm. état décision bi te mm-hmm. effectivement. l' état a eu des problèmes. pour prendre une décision ci wàll woowu. dafa mujj bàyyi rek gis nga même décret bi wax bi mujjee bind. au début dañu doon bind les lieux de culte mu ñu ñu dindi les lieux de culte rek ñoom seen bopp dañu ay jafe-jafe. pour jël ay décisions yoo xamante ni day jëm ci ci diine. moo tax man daal. Euh, perspective la boo xamante war nañ koo xalaataat. Mm-hmm. Euh, créer ci peut-être benn euh, ay ay waxtaan. ay mm-hmm. waxtaan ay jotaay xam-xam yoo xam ne dañ ci woo. sociologue yu mel ni jaxate mm-hmm. ci nitu diine woo ci aussi ñi nga xamante ne ñoo nga administration état ñu réfléchir ci benn schéma boo xamante dina permettre ñu mën a ñu mën a taxaw ba barki dana maa ngi wax ni que diina tey ci état kan moo koy gérer ministère de l'intérieur ci ban but la ko doon gérer lañ ko defoon utiliser pour contrôler woon rek bu ñëkk état colonial loolu moo fi bàyyi woon parce que ministère de l'intérieur boobu moo daan contrôler diine gi parce que dañ ko jàppe woon comme loo xam dañ ko war a détruire war a loo xam dañ ko war a maîtriser mais tey nekkatuñ ci rôle maîtrise ci collaboration ci ànd liggéey ci ñoŋal réew mi la mhm. donc tey war nañu xoolaat ndax ministère de l'intérieur déjà bi ñu ko dénk c'est pertinent wala boog ci biir maa ngi wax ci benn waxtaan bëgg de ma ni man je serai pas contre un ministère même du culte boo xamante lépp lu jëm ci wàllu diine ci réew mi. Hmm. moom moo koy gérer comme ni ko Maroc hmm. amee. dafa mel ni su amoon tamit solution dina mën a am de. waaw je pense que. am na ci loo xamante ni ci diine war nañ ko mën a formaliser li nga xamante ni day rentrer directement ci euh, euh, rôle euh, hmm. ci ci nit ci ci ci ci nitu ci diitu diine gi. maanaam ci njàngam ci calendrier li may wax nii am na ay des choses pratiques. ay taxawaay yoo xamante ne ci yu opérationnel lañ yoo xamante ni war nañu mën a teg kat ne état ñii la ciy consulter ci wàllu mais am na loo xamante ni nag c'est des relations yoo xamante ni kilifa yu mag ñoo koy gérer te tey loolu ñoom damay wax ni que c'est des conseillers gratuits. Mm-hmm. des conseillers ah, gratuits yoo comme bi si kenn du leen fay. Ah. <laughs> dëgg <laughs> yoo xamante ni <laughs> bu état soxlaa xalaat ci mbir wala mu bëgg a yenn taxawaay ci mbir dañ ko daan taxaw ñaata yoon lay jafe-jafe am ci ay. problème mu suuf. diggante ñaari ay ay ay ay gox. Mhm. kilifa diine yi du état moo koy la mhm. kilifa diine yi ñoo ciy wax ñaata yoon problème am diggante. Mhm. ay ñu am euh, ay population ak ay société privée wala ay société euh, comme ay administration publique. bu boobaa état day impliqué wu. mais day impliqué en tant que belligérant. ki nitu diine rek moo mën a taxaw pour mën ko pour mën ko réguler donc tey. kilifa yi yi mag dañ leen soxla ci loolu. Mhm. peut-être que loolu dina naqaree formaliser mais li nga xamante ne dafa jëm ci ay wàllu weer wàllu daara wàllu yi nga xamante ne ay ay ay yu ñu ci suñu diine de tous les jours. Mhm. waa laaj na état kat jël ko en charge ci anam boo xamante ne anam boo ma jox la benn exemple rek. Mhm. xoolal li ñu doon affaire les enfants de la rue. amul benn ku mën a gere euh, amul benn administration en bu ko gérer. dama gis ne que bi ma ci demee ji ci dox ñun suñu wàllu a jox nañ ci dox ñu gis ne que état ñeenti ministère lañ ci nekk. oui ministère de l'intérieur a ngi ci. Mm-hmm. waroon jël xale yi leen yóbbu. Mm-hmm. xaw ma de la. Ah, de la famille ministère de la mm-hmm. famille mi ngi ci doon kan mooy gérer mbir mi. je pense que y am na ay ay ay ay taxawaay yoo xamante war nañ ci xalaata pour que lépp loo xam dafay laal diine. Euh, ci mu am taxawaay boo xam war nañ koo mën a taxaw. ngir mën a am ay solution yu opérationnel. loo xamante ne nag jarul jarul jotul ak dara. relation bi nga xamante ne wala boog taxawaay bi nga xamante ne kilifa diine bi ñu ngi koy am ci mën ko. gestion des mosquées. Mhm. tey da gis mosquée yoo xamante ni benn imam moo fa nekk. Mhm. waa koñ bi ñooy cotiser ngir. tabax mosquée mën a taxaw. Mhm. am na loo xamante ni te ba ba je pense que war nañ mën a am ay subvention yu jóge ci état taxawaay bi nga xamante ni moom parce que état lan la mooy rôle am mhm. lépp loo xamante ni bëgg-bëggu askan wi la la nga xamante moom la askan di dagg ci seen poste di ay impôt ñu am lu mu leen ci delloowaat mhm. tey bu mel ni jàkk lu mel ni église lu mel yooyu ay taxawaay la yoo xam ne ay ay ay lieu la yoo xamante ni nit ñi ñoo ko soxla ñoo koy taxawal seen bopp mhm. mën na am nag bu buñ ci amee jafe-jafe wala bu lañ ciy soxla du matale état mooy ñëw pour compenser ko donc man daal ci yooyu laa xalaat ni war nañ ci mën a réfléchir en ban rôle la religieux yi war a mën a jouer wala boog ban relation la état mën a am ak religieux yi mhm. ngir mën a yëwénal nekkinu askan effectivement professeur euh, beneen laaj bi ñu lay laaj xam naa léegi ñu àgg si sax si njeexantalu euh, waxtaan wi li ñu la bëgg a laaj mooy tey bu ñu xoolee di Serigne Cheikh fasal ci wàllu euh, ay défi tey dañoo toll foo xamante ni daanaka ndaw ñi lu ci ëpp fi ñuy informé woo mooy si réseaux sociaux yi mu nekk espace bu libre boo xamante ni daanaka boo xawee euh, yolam xel tuuti rek dinañ la dugal ci yenn yi ba gis nañ sax léeg-léeg bu kilifa diine yi àddoo ay ndaw ñooy taxaw taxawaayu nit ñi ndaw te ñu leen yemale ci seen place. maanaam day dem sax boo xamante ni dañu ndax du discours religieux yi dañ leen démystifier léegi ba nga xamante ni léeg bu ñuy toppee ña sa des ci wàllum par par loolu du ñu mën a topp loolu boo ko dee gis ci penc bi fi mu toll perspective yi ëllëg lan la mën a jur. waaw loolu yëpp dafay dellu ci yar suñu suñu njaboot ci surtout yu bees yi nga xam ne mi ngi ñëw ci ñun euh, mais surtout yar suñu njaboot parce que gis nga réseau social téléphone portable informatique lépp yëpp ay jumtuwaay la li mu fekk yow rek lay génne li mu fekk yow rek lay génne jumtuwaay yàgg na fee am waaw jumtuwaay la que dafa jumtuwaay bi dafa ñëw gën koo yokk gën koo jëmmal <laughs> yaa ngi gën koo jëmmal mais mi ngi fi woon mm-hmm. Euh, te gis nga jumtuwaay boo gis rek mën nga koo utiliser ci lu baax mën nga koo utiliser ci safaan mhm. waaw ba ci ba ci garab yi sax nga xam ne dalay faj mhm. mën nga am na noo koy utiliser mu nekk tookee pour yow donc bu ko defee kon li ci ëpp solo moom mooy yar yar dafay def ci nit pas seulement rus mhm. mais dafay def ci nit jomb jomb c'est important maanaam nga ni lii wéet naa man donc sama néeg maa ngeeg sama Euh, ordinateur mën naa cee def lu ma neex kenn du xam waaye jomb naa cee def loo xam ni lu ñaaw la. loolu jomb naa ko loolu loolu yar moo koy def ci ci ci ci doomu moo war nag boo ko dee xool suñu penc mi euh, ci yàgg nañ koo wax nag ni nañu nañu gën a dëgëral njaboot yi waaw gën a dëgëral njaboot yi. Euh, parce que lu ko mooy mooy yar ji nga xam ni moom la ñu waroon def ci kër ci biir kër gi bu sooxee dafay indi après jafe-jafe pour nit ki. yar gi ñu def ci biir kër gi wax naa la sànq ndab bi ñu daan tàpp taaj ñi ci añ. wala di ci reer gis nga niñ ci doon defee yenn jikko yi ci nit ki niñ ko daan waajalee yenn yi sa kanam ngay yem waroo laal ndawal gi ci diggu ndab la waroo tuur ñam gi waroo lekk di wax waroo lekk di jël sa loxo di ko teg ci suuf yooyu yëpp dafa am nenn lu ñu doon waajalee nit ki ba nga xam ni bu kër gi paree ci moom dafay nekk koo xam ne nit ku mat la nit ku sotti la def nañ ci moom loo xam ne dafay jomb moom dina jomb wax yi maam moomoon di lépp ak moom lépp boo ci mënti gis rek dafa doon yar gone gi gis nga dañu am ay question yoo xam ne ba léegi rek léeguñ ban façon république la ñu bëgg tabax moom la sëñ bi doon wax sànq ndax dañoo war a jël république bi nga xam ni tubaab bi moom la ñu daggal solol ñu ko ñu soloo ko ñun di doxee noonu wala ndax dañoo war a xool ci république boobu lan mooy ñun li méngoo ak ñun suñu suñu aadaak suñu cosaan suñu gis-gisu àdduna mm-hmm. foofu am nañ fa ay jafe-jafe mm-hmm. dañuy wax laïcité boo ko dee xool dañoo xool ci tubaab yi rek nañu nañuy doxalee ñu mel ni dañoo war suñu loi ñuy doxalee suñu république dañoo xool ñoom li ñuy doxalee rek ñu daal di rëdd daal def mhm. léegi bu ko defee kon ñun il faut ñu xool tëggaat suñu suñu république ba delloo ko mu méngoo ñun ak suñu aada ak suñu cosaan mhm. naka noonu suñu école bi lañ fay def lañu fay jàngale nañu yare ki maa ngi tolloon ci école ba mhm. parce que ginnaaw boo génnee ci kër gi dem ci école ba wala nga dem ca atelier ba wala nga dem ca daara ja yooyu yëpp formation bi ñuy def ci nit ki ban jubluwaay maanaam ban ban ban jeexital lañ ciy wut. parce que loolu bu fekkee ni regle wuñ ko dafay xaw a indi yenn saa ay jafe-jafe. parce que kii dee def lii kii def la ci des xale bi bu demee fii ñu wax ko li mu dem fële ñu wax ko la ko des. Mm-hmm. te ñëpp ñi dañuy yar. maanaam kii lim lay wax ak kële lim lay wax àndul te ñoom ñaan ñëpp ñu bokk ni dañuy yar. xam nga bu boobaa dafay indi ay euh, jafe-jafe ci xale bi ban modèle la war a téye. ban repère la war a am euh, ab pénc dafa war a am ay repère dafa war am ay ay parce que yooyu bu fa nekkee bu fa nekkul musiba dafay am dafa am ku ne euh, ñeenti ñi bu ñu dajee ci pénc musiba am mm-hmm. kan ak kan waaw <laughs> nee na ci njëkk mooy borom xam-xam bu maanduwul mm-hmm. xam nga borom xam-xam bu maanduwul yàq da koy yomb. Mm-hmm. parce que day wax ñu foog ni xam-xam lay waxee. fekk ne mi ngi yàq boppam waaw problème la. Mm-hmm. nee na ki ci topp mooy mag bu tàyyi. Mm-hmm. mag bu ni man daal tàyyi naa sama yoon nekkut ci mag du tàyyi. parce que day jafe mais moom bu mu tàyyi na fay nekk defu ci crois que suñu jox nañ ci ay exemples yu wóor. yàgg na jafe euh, tout ça mais dañuy téye rek fa ñu nekk ña nga euh, nee na bi ci bi ci topp. moom mooy borom alal bu kàccoor. Euh, kooku it yàq da koy yomb. parce que xam nga boo amee alal ci pénc moo xam ni tamit euh, ñàkk bi dafa xaw a bari boo amee alal boo moytul yàq na la nee na bi ci topp nag mooy ndaw bu ñàkk kilifa loolu nag mu daf ñuy delloowaat encore ci yar bi kilifteef daf ñuy delloo ci yar ba ñu reconnaître kilifteef ba nga xam ni kilifa bu bu waxee ñu jox ko cër ba mu war a am yépp euh, te kilifa bi nag yàlla daf ñoo dimbali ba ñu am kilifa yoo xam ne jëluñu mbir mi delloo ko seen bopp dañ koy jël delloo ko ci njëriñu pénc mi loolu c'est important am na ci yenn pénc yoo xam ne boo fa demee kilifa gi par exemple boo xoolee li ñuy wax lee sect ki koy jiito mu ñu ngi koy wax guru day jël alalu ña mu jiite ñëpp yenn saa sax mu jël seeni soxna bu paree ni leen xaru leen boo leen xaroo ngeen dee da yegg àjjana ngeen toog xaar ma fa maa ngi ñëw fekk leen fa ñu ne dañu développé benn complexe boo xam ne dañu yaakaar ni lu jógee ci tubaab yi rek moo baax te ñun li nga xam ne tëgg nañ ko démb ak bërki baaxul or tubaab bi ñoom ci seen bopp ñoo dem ba ne ñun suñu civilisation fii mu jë fii mu nar a jëm léegi baaxatul nous autres nu nous savons maintenant que nous sommes mortels Paul Valéry mooy wax loolu maanaam ñun tubaab yi mala yi yenn yu ñu loon def sax léegi ñun ñoo ngi koy def ba pare daal di bu ñu kenn toppandoo ci ni ñu mel société yi nañu yeneen société yi nañu xool ci seen aada ak seen cosaan lii jëmmal nit nit ba mu nekk nit lii màndargal nit nañu téye ci loola te bañ ñoo topp Bob Marley way ni hmm. esclavage bi gën a graaw mooy esclavage Emancipate yourselves from mental slavery. none body but ourselves can free our mind. en fait esclavage bi gën a graaw mooy esclavage bopp bi nga jàpp ne yow diw moo la gën. wala la mu am moo gën li nga yor li nga yor te ñoom ñu daw ñi ñoom ñi ngi ci guuta fi mu toll nii. jafe-jafe yi bëri na ci seen pénc. yëngu-yëngu yi bëri na ci seen pénc dem nañu ba liy màndargal doomu aadama mi ngi wàññeeku mi ngi màbb bu baax a baax ci seen pénc yooyu ci ay jëf yoo xam ni euh, kersa mayuma ma koy wax fii yi nga xam ne danga koy fekk ci réew yooyu alors donc jamono jooju ñun ñu am pénc moo xam ne wax dëgg yàlla boo delloo ci sa démb dellu ci sa cosaan dellu ci sa diine nga gis ci ay jëf yu rafet nga gis ci ay wax yu rafet nga gis ci ay jëflante daf li nag Sénégal dañu dafa nekk dëkk boo xam ne li gën a ñaaw rek li ñuy fësal la ah. mm-hmm. mais lu rafet mi ngi mi ngi fi ba léegi ah. lu rafet mag ñaa ngi koy dox mag ñaa ngi koy wax mm-hmm. mag ñaa ngi koy dox mag ñaa ngi koy wax te bis bu nekk ñu jox ñu ay modèle gis nga mm-hmm. euh, sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke yàlla na yàlla yokk leeram ci yóbbu àjjana gis nga bi mu wàccee liggéey Euh, sëñ Mansour dafay yónnee ndaw pour jàll ndaw bi dem ñëwagul mu dem fekki ko fa. <laughs> ana lu ana lu gën a rafet loolu. maanaam mag ñi ñi ngi ñuy wan ay lu rafet bés bu ne. mais duñ ko fësal. xam la la ñuy fësal jiw wax na wax ju ñaaw. diw saaga na diw diw moo gën a mën a saaga niw moo et lool tamit nag yéen ñii di hmm. taskati xabaar yi am ngeen ci responsable moo maanaam mooy ndab mi ma doon wax rek ku ci hmm. nekk hmm. war nga koo téye ba ruwalee ko ku ci nekk daal am nga ci pàcc boo war a téye ah. boo xam ne bu ñu ko téyee yàlla mën nañu dimbali ba ndab lu du yëngatu incha allah euh, kilifa gi euh, ñu li ngay sof sof ci kàddu professeur maanaam ci wàllu yarin bi ak ni ñu war a jubbantiwaatee askan bi surtout que léegi comme ni mu ko waxee vraiment le pouvoir des médias surtout les médias sociaux fi ñu toll nii bëri boo xamante ni daal daanaka lu si ëpp li ñaaw mooy gën a fës que li baax. waaw dafa am loo xamante ni dama koy wax souvent ni mag ñi. Mhm. tax ñu baaxoon dañoo nekkoon ci environnement ngëneen di dégg lu rafet. Mhm. di wax lu rafet. ba ku nekk ci seen environnement da loolu nga ci loolu la ñuy tàggat ci yow ba nampatal la ci ba doo bëgg lu lu baax. ah waaye comme ni ngeen ko waxee. réseaux sociaux yi léegi dafay wala boog médias yi sax globalement la. Mm-hmm, mm-hmm. dañuy génne lu yi nga xamante ni parce société bu nekk am na ay ay ay ñagas-ñagas. Mm-hmm. waaye bu fekkee ni dañu nekk ci société boo xamante ni lépp li nga xamante ni ay ñagas-ñagas lay gën a fësal. Ah, lu baax li mu ngi koy nëbb. dafay indi ay jafe-jafe. gis nga ñun dañu gis ne que depuis euh, quelques années perte de valeur boobu réseaux sociaux daf ko accéléré. moo tax eh, ñun ci wàllu suñu taxawaay ci cadre unitaire de l'islam li ñu njëkk eh, yëngal mhm. mooy naka la ñuy def bañ eh, valeurs yi nga xamante ne mag ñi bàyyi woon nañ ko mhm. naka lañ koy mën a tàggataate mhm. ci biir société bi ci biir askan bi jaarale ko nag ci suñu système d'enseignement parce que gis nañ ni que système d'enseignement bi fi am tey jibi jox professeur wax na ko léegi li ci ëpp ci ay ay taxawaayam ay valeurs yoo xamante ni dañ ko jéggaani mhm. lay indi gis nga même ba ci daara mhm. ñuy gën di wax ay valeurs yu jógee arab ci arab bi la ñuy mhm. la ñuy a tàggat que mhm. suñu ay valeurs traditionnelles duñ mhm. doomu même boo gisee daara raar ngay dem fekk fa ñu fay jàngale xasida Sëriñ Tuubaa da ngay dem ba dégg majaalis doo ko jàng xasida Sëriñ Tuubaa ba dégg doo ko jàng xasida <laughs> xasida Seydi Hajji Maalik effectivement boo demee ay ay ay Ibn Rushd rek <laughs> Ibn Khaldun ci bu lay jàng yu demee ni que <laughs> noonu naxu weeg yëpp voilà yooyu ah. ñun nag ñu ne valeurs yi nga xamante moo tax ba Sénégal li mu mm-hmm. am tey mm-hmm. ñu ràññee exception boobu mm-hmm. il faut ñu xool naka la ñuy def ba gën ko euh, tàggataat ci ci xale yi euh, ci anam boo xamante ni dañ koy màggaale ngir li ji wax dafa am solo euh, ci seen jëfin ci seen taxawaay dootuñu génneeti lu bon dootuñu génneeti loo xamante ni safaan lay doon mais toujours dañu rafetal gis nga jamono yi ñu génn dama wax ak benn ma ne ko ñaari weer yi ñu génn Sénégal Euh, réseau amul dara looy wane ci réseaux sociaux. Hmm. wala looy lii ci réseaux sociaux yi. mu hmm. xamante ne daf lay jëriñ. Hmm. dëgg la. ay ñaawteef rek ngay gis. man dama mujj ku ma ci envoyé te euh, xamante ne ñaawteef dama lay tontu rek ne baal ma rek bu parce que dafay dem ba polluer sa sa sa sa nekkin loolu nag responsabilité ñi nga xamante ne ñoom laa ko ma jaay. Ah, ñu ngi gërëm am na ci ñu am responsabilité nag. vraiment man gis naa ci ñoo xamante ni. événement yi bi ñu amee dañu leen ñaan ne leen lii kat dañ leen ñaan bu ngeen ko teg. ñu rafetal. ba sax gis naa ci koo xamante dafa yàq émission. ndax loolu ndax rafetal rek. mais am na ñoo xamante ni je pense ci loolu la ñuy. moo leen dundal moo leen dundal moo leen dundal bon loolu nag ah dañuy am ay ñàkk xam sa responsabilité. xarit ci sa ci penc loolu dina koy dina koy indi moo tax ñu ne héritage yi nga xamante ni mag ñi bàyyi nañu ko muy ay valeur yoo xamante ni moo sanc tey suñu suñu société valeurs yooyu dina laajaat ñu xool ci yan anam lañ ko mën a dugal nga sëñ Babacar Si yaa radiyallahu taala an sëñ Hajj Maalik dafa wax ci moom bi ko tubaab parce dañ ko dañ ko ñëkk laaj Ahmad Si mu dem ca guerre ba ñàkk euh, ñu toogaat quelque temps tubaab yi laaj ko euh, sëñ Babacar mun leen waaw bu fekk boo ko bëgg dugal ci seen administration mun leen waaw kii mun naa leen ko jox ndax jiitu naa leen ci moom mhm. jiitul boobu ci moom boobu ñun la ñu war a def ci suñu ay doom mhm. Mhm. ci balaa muy dem ci réseaux sociaux yoo xam nga loo tàggat sax da koy la am njëriñ parce la am la nga lañ ci war a jël mais ñun dafa mel contraire la ñuy def la ca la ñuy a fësal donc il faut ñu jiitu suñu ay doom ngir li nga xamante ay ñaawteef lu nekk ci médias ñu xool ñoom naka lañ koy seggee ba suñ ko gisee sax dañ naan kat lii baaxul. parce que am na loo xamante ne agression la mënatoo dara dañu la agressé ba sa biir nekk. waaye li nga mën def mooy fexe ba xale euh, wala sax mag mi bu ko gisee segg ko ba nga xamante ne dina loolu baax. donc man loolu laa ci amoon ci vraiment taxawaay boo xam ne dañ koy dañ koy ñaan. Mhm. di ci di ci tàggat. Mhm. suñu bopp di ci tàggat euh, nit ñi ba. Mhm. état bi xam ni valeurs yooyu mag ñi bàyyi woon ay valeurs yu am solo la. ñun ñu defaroon benn manuel boo xamante ne dañ ko dañ ko tëggoon ci. lépp loo xam ne ay valeur la. Mhm. mag ñi bind ko fi. Mhm. ñu ne xool naka lañ koy dugal ci enseignement. Mhm. ba nga xamante ni ah de ci euh, éducation civique yi ñu daan def euh, ci éducation morale yi. ñu xam ñu koy def ci école yi. nit mën ko mën ko mën ko jëriñoo. kooku mooy ci suñu taxawaay. ah euh, li nga xamante ay réseaux sociaux la tamit. neexul a contrôler. mais aussi état wala ñi nga xam ne ñoo ko ŋànk ay CNRA ak yooyu. gën ci dugal seen loxo ngir ñu xool naka lañ koy mën a. li nga xamante ay ñaawteef lañ ñu mën ko limiter. ba du egg ci yenn niveau yi. Mm-hmm. lu am lu am lu am solo la maanaam tey ñu delluwaat ci li nga xam ni moom la ñu yàlla may ci wàllu richesse ci côté culture côté société ak li nga xam te ne moo di wàllu aada cosaan. Mm-hmm. loolu yëpp ci wàllu taarixu réew mi lu ko dalee ci suñuy maam yi ba tey fi jamono toll. faaw rek ñuy mun di identifier suñu bopp ci suñu magu démb bu ko defee ñu mën a xam fa la ñuy teg suñu tànk mbokk yi waxtaan wi euh, doyaluñu sincèrement doyaluñu waxtu wi gàtt na waaye comme dañoo dalaloon ay kilifa yoo xamante ne dañoo bàyyi seen yitte ngir rek sànq niñ ko waxee luy jëriñ askan wi faaw rek ñun itam ñu yemale ko fii ba beneen yoon incha allah du ñàkk daan leen fi dalalaat ngir gën a mun a waxtaan ci loo xamante ni bés bu nekk rek askan wi mën na si di si jaruñu ndax loolu mooy suñu mission moo waral altine bu nekk dañuy amal débat bu mel nii pour waxtaan sottante xalaat ci loo xamante ni dina mën a jëriñ askan wi may fàttali ñu ngi doon dalal kii di Serigne Cheikh Tidiane si moom mooy président bu cadre unitaire de l'islam ak professeur Djibi Diakhaté di sociologue moom nag xam naa foog ma bàyyi ko mu daw rek ndax yëfu njaaxate yaa ngi koy xaar <laughs> euh, ñu koy bàyyi mu joxe kàddoom gu guddul mujj sax la ñuy wax professeur waaw euh, jërëjëf man de damay kontaan rek ci émission bi di rafetlu tamit li ngeen xaw naa gëjee gisee ak sëñ bi <laughs> émission bi fexe ba ñu gisee waat mhm. waaye lii rafet na gis nga dafa dama def benn émission fan yële ak benn journaliste bi ñu pare mhm. mu ne ma mais ndeke ne débat bu mel nii mën naa nekk mhm. maanaam waxtaan boo xam ni du am ci nekk da ngay wax sa idée amul warante amul wax ju ñaaw amul wax ci vie privée nit mais mu dal mu ni ndeke ni lii mën naa nekk ma ko waaw léegi nag seen responsabilité la yéen xool du ngeen di mën a tëralee noo xam ni luy jëmale penc mi kanam la te sujet bu ci nekk mën nañ ci discuter euh, mais buñ ciy discuter rek ñu discuter ci dal mm-hmm. te am ñun ñëpp yàqi ni li ñu tax a jóg rek moom mooy defar waaw parce que tamit boo nekkee loo xam ni ñëpp a nga koy xool mm-hmm. te doo xam fan la mën a yem. foofu lu rafet rek nga fa war a mën a wane. lu rafet rek nga fa mën a wax lu rafet rek nga fa mën a def. waaw kon te parce que loolu responsabilité bu mag la bu nga xam ne moom la ñu. Mm-hmm. bu ñu fàttee daal ni ndab li warul yëngu mhm. te li tee mu bañ a yëngu mhm. mooy ku nekk nga téye ko ci sa loxo càmmoñ ba nga xam ne du yëngu te ku nekk nag mhm. nga lekkee sa loxo ndeyjoor te sa loxo ndeyjoor boobu nga yem sa place incha allah am na solo en ñun ñu ngi fi <laughs> wax dëgg yàlla lii la soxla rek pour luy mën a participer ñu taxaw suñu taxawaay bi ñu war a taxawee bu ko defee bés bu leen ko seen jot maye rek dinañ am mbégte lool di leen fi di leen fi dalal dalal Serigne Cheikh waaw ah, xanaa di rafetlu invitation bi ak. Mm-hmm. Ah, ki ma ko seqaloon di sa professeur Djibi Diakhaté di rafetlu encore ah, taxawaayam ak xam-xam mm-hmm. ci réew mi. Mm-hmm. di wax ni eh, thème bi ngeen ñu ci invité dafa am solo lool di wax ni réew li ñuy wax politique. dañ ko dénaturé trop. te wax na ko sànq. il faut que ñu delloo si waat xel yi. gën koo sellal. ndax ñuy def plus de politique euh, moins de politique et plus plus de d'économie et de je pense loolu mooy tey mooy suñu taxawaay ñun en tant que en tant que faral di sax dama ñu bi dafa ma tooñ euh, mm-hmm. man léeg-léeg dama <laughs> moo tax damay damay damay xaw damay xaw na solo <laughs> euh, mais pour dire rek ni ah. euh, réew mi il faut que ñu ñu tëggaat suñu ni ñuy doxee ni ñuy defee politique loolu daf je pense que anam bu bu am solo la ñi nga xamante ni dañ leen a dénk ñu xam ne dañ leen a dénk Euh, suñu doom ñoo ñu dénk àdduna àdduna euh, bi nga xam ne mag ñi ñoo ñu ko ñoo ko fi bàyyi ñu xam ne du suñu moomeel te kon dañ ci am responsabilité buñ koy jox suñu doom ñu jox leen ci anam bu sell te loolu nag ci yar bi ñu di yar la a doon mais aussi sellal suñu nekkinu tey ngir mën a defal suñu lay mooy nekk sama message boo xam ne dama koy ñaax sama bopp di ci ñaax sénégalais yi ñaax way politique yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ñoom la ñu dénk suñu ay njaq ñoom lañ dénk suñu ay ndaa di wax ni suñu ndaa bu tojee ñun ñëpp la tojal kon dañu leen di ñaanal ñoom tamit yàlla gën a dëggal seen taxawaay mu nekk ci opposition wala mu nekk ci pouvoir ndax ñoom ñëpp xam nañ ni leen tax a jóg mooy defar réew mi defar defar askan wi defar réew mi waaw hmm. ah, dañuy ñaan kon yàlla gën a dëgëral seen taxawaay kii ah, waaw kilifa diine yi tamit yàlla sàmm leen ñu continuer di ñu gindi ci li nga xamante ne hmm. àdduna bu lëndëm la ñu ñaan yàlla gën a dëgëral seen taxawaay. amiin amiin amiin amiin yàlla wàcc jàmm ci réew mi. waaleykum salaam wa mu nekkoon nag euh, seen édition spéciale bi ñuy defal bi ñuy def altine bu nekk fii ci Equivox TV ñun ak yéen nii rek incha allah dinañ fexe ba altine bu nekk ñu xool benn tomb bu am solo boo xam ni mënees na jëriñ askan wi ñu dal ci ay borom xam-xam ay kilifa vraiment ñu ñuy wax ay responsable yoo xam ni war nañu bu ñu noppi woon sax ñu jox leen xaalis fay leen ni leen gën leen wax ñu fexe dale leen fii ngeen mun a waxtaan ak ñoom jaajëfal suñu ay invité Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy di président cadre unitaire de l'islam professeur Djibi Diakhe jibi Diakhaté di sociologue jaajëfal yi tamit suñu équipe technique bi ak la rédaction ci wàllu coordination bi di jaa jaajëfal la direction générale de Equivox TV mu nekk équipe boo xamante ne nag soxla nañu ñaani kilifa yi bu baax a baax ndax ay ndaw lañu bu ñu sañoon rek ko ci ñoo xam ne ñooy defar réew mi ñu leen jox daje altine jàmm ak salaam ci beneen waxtaan jërë ngeen jëf.